mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di tuubalaat yàlla sunu boroom ak di ko jéggalu te fas yéene di ko wéetal di ko bennal di xam ne moom rek mooy kenn moom rek moo yeyoo dee si ko bennal te itam mboolem yi nga xam ne xëy na mi ngi xew ci jamono léeg-léeg wala kàddu yu jub léeg-léeg ba ci fan yee ci lu mujjatul itam te muy loo xam ne metti na ci xolub jullit bu ne waaye nag du wut ne ñëpp a ca man dara loolu yéen ngi koy tuubal dégg ga ak xew ga ak ko ko mettitlul ak di ko naqarlul xam ne it dañ caa mënul dara waaye buñ ca mënoon dara daañu ci jëm insha allahu taala loolu lépp yàlla na ko jéggal ndax bàkkaar bu rëy nit dana ko def ay nit nekk fa fekkee ko te duñ ca te duñ bokk ca bàkkaar ba ndax lan metti gum leen metti ak ñàkk guñ ca ñàkk ànd ak ñàkk guñ ca ñàkk gërëm waaye nag dees na ko ci barab ay nit nekkuñu fa fekkewuñ jéguñu tinuñu waaye far bokk ca bàkkaar ba ndax buñ ko yëgee gërëm guñ ko gërëm ak bàyyi guñ ko ca bàyyi te mënoon koo saafara kon nag ñu ngi jégalu yàlla lépp loo xamante ne bii ñu ngi ko koy def wala ñu di ko wax neexu ko te mënuñu ca dara yàlla na ñu mbir itam nag ba bu ñu bokk ci nga koy def mukk euh, kon jëlee nañ ci mu ngi doon wax ci ba tey ahadis yi nga xam ne moom ñu tuddee almansooraat almansooraat mooy hadis yi nga xam ne tënkuwuñ nag ci benn bunt bu ne rek mën naa ñëw duñ ca sàtt mu bokk ak morom ya ca bunt buñ nekkoon wax boobu bokkul ak ya nga xam ne ay usul la ko defoon ca gannaaw nga xam ne moom hadis yu bokk thème bu leen tax a bu ne ñooy bokk benn fas bi lii moom ay mëntooraat rek la ko tudde bu neneen dina ci ñëw benn bu ci nekk njëriñ la mu làmboo loolu la wax ne day amee Abisa Xalabata jëlee nañ ci ku ñu bi wa sallam xaala wax na ne inna laaha nag yàlla taala farada farataal na ci yéen faraida ay farataam fexe leen ba falaatu day oha bu leen ko sànq lu ne la cay fartay suñu boroom waxtu julli bu jotee waxtu wéer wa ramadaan bu jotee ajug màkk ga topp sa ñaari waajur yi fartay suñu boroom yi bari waaye fexe leen ba bu leen ci sànq benn na ngeen ko taxawal ndax loola taxoon mu leen ko farataal waxadda dayal na itam ku doodan ay dayal te mooy lenn lenn lu ne wutal na ko ab yamukaay boo xam ne ca lañ ca war a yem loolee ne fa laa tax tudd xaar bu leen ko jalgati mukk te booy bu leen jéggi fa mu leen yemloo di jàll ca la nga xam ne eh, diglewu ko yàlla yem farataal yem farataal wutal na ko yemukaay boo xamante ne bii ca la ko yemale dalee ko fa mu ko dale yem fa yem ko fa mu ko yemale boo doolee rek mu yàqu julli tisbaar yàlla daytal na ko ci ñeenti rakka bul xër ba def ko juróom julli suba bul xër ba def ko ñett koor yàlla nga ko daytal ci ku jant bi soo bul xër ba tax jant bi soo nga ne yow doo dog da ngay xaabaabal rek tuuti xaaju guddi wala far dem tax nag ba fajar lu ci ne boo àggee fa ko yàlla yemale rek yem ca foofu waaye bu dee yi mu daganal na it wutal na ko ay dayookaay yoo xamee ca la yem lenn lu lu mu daganal lu ne dee jëfandikoo lam ca dagganal waaye bul ci jàll ca la nga xam ne nag da koo araamal yàlla ba la daganalee jigéen waaye daa am jigéen ñoo xare ne nag moom daa araamal ñu ngeen di leen takk soxna ku ne xam na ñoo ñooñu fexeel ba bu ca takk soxna moom la daga ne nga takk ci jigéen ñi lu la ab lim da koo daytal ci ñeent kon fexeel ba yem ca bul ko jalgati mukk nag di jàll ca juróomeel muy ñam yi ñuy lekk da ko ay yemukaay yoo xam ne yii moo dagan ñu lekk ko ak yooyu dagal lu mu lekk ko deel lekk ca yi nga xam ne dagan nañu lekk ko bàyyi fa ya nga xam ne dagaluñu lekk ko loolu mooy fexe ba lenn lu ne fa yàlla yem lu yem ca net bul ca jéggi nag lu toll ne bën bën kusal araamal na itam moom yàlla asiyaa ay yëf falaa tuntahikuha bu leen ko bëtt mukk yooyu yàlla araamal bu leen bëtt di ca dugg mooy itam li araam ku nekk xam na ko saa boo jëfandikoo lu araam rek mel na ne xotte nga orma joo xamante ne bii mooy orma yàlla wasakata noppi na it moom yàlla an asiyaa ci ay yëf yoo xam ne waxu cag dagaman waxu cag xaraamal waxu cag farataal waxu cag lenn da caa noppi rek joxewu ca benn àtte loolee lu tax rahmatan ngirug yërëm lakum ñeel leen te du ngeen am ca liberté sañ koo jëfandikoo nu ngeen ko bëggee te du ngeen ca wuuteeg àtte seen borom benn waaye xayra nisyaanin ci dul fàtte yooyee yàlla waxul dara fàtte taxul mu noppi ca ne yàlla du koy fàtte yooyee nag la solaay tam ne falaa taxutu bu leen di luqutu anha di lëqutu nag fu ne ngay laaj lii moom lu jub ak déet lu ci yàlla noppi noppi ca xam ne da caa liibar bu ko def da la caa may liibar bi saa yoo bëggee def gannaaw du la lor demal def saa yoo bëggee bàyyi dalal di bàyyi saa yoo la na lor nga bàyyi am nga ci liberté boo teg waaye lëqutu nag di laaj bu ëpp ak gëstu yooya daa mën na da dee day yóbbee la ci boppam saf ci sa bopp ak xarit banoo Israël def naa ba leen sun borom ne inna laaha ya'murukum an tazbahu baqaratan yàlla daana yem foofu ñoo sa nekk nag di loo xam ne yàlla ba mu siy nekk la ko maalaw nu xaak maahiyaak ba mu yóbbi leen problème boo xam ne mënatuñoo am nag wu mel noonu fu ñu ci jàng jàll rek yàlla acca kon foofu ba gannaaw yéen ko ci dolli kon nag dolli naa ko ñuy dolli ba mujj na nag ba mënatuñoo am njëgam mënatuñoo gis sax wu mel noonu wuy jaay moo tax boroom xam-xam yi wax ne ba leen yàlla nee na an tasbahu baqaratan bu ñu demoon rendi nag wuñ rendi woon mu nag wu góor aw nag te yàlla nag rek la wax wu jigéen wa aw nag sëll wu tuut wa aw nag wu xonq wa wu wér wa wu wopp wa yooyu yëpp buñ ko ca lëkkutu woon xara dem bu buñ mën a am rek yàlla loolee fàtte taxul mu leeral yooyee fàtte taxul mu bañ ko caa daa bëggoon mbir ma yaatu lii war noppal leen lool waaye nag ñu dem di loqati moo tax yéen bi la alayhi wa sallam daan wax ne su ma fu ma yemati yem leen ba mu waxee ne inna laa farada farada alaykumul hajja fa xujju yàlla daa farataal ci yéen aj na ngeen fexe ba aji loolu yem na foofu am waaju ko ne akulla amin ya rasulallah ndax at mu ne la yonente bi dafa tàng ci kaw ne ko law qultu na am la wajabat lama sataxtum fu ma yemat yem leen fa yaa ngi nii naan ma ndax aj gi at mu ne la war doon te bu ma la doon waaw rek mu war ci yéen at mu ne bis bu at mu nekkati da ngay ni nga xam ne at mu nekk da ngay war te ko itam du ngeen ko man kon nag gannaaw bu ma yàlla farataal ci aj leen bàyyi ko noonu boo ajee benn yoon rek def nga digal la waaye nag di loqutu ba fexe ba yàlla tegal la ci leen loo xam ne ëttanoo ko loola yaa ko def sa lu nekk rek fu ca yónnante ba wala yàlla yem ca yem ca foofu tëkkaliwul nag ne yow da nga yem ci li nga xam dong loo xamul dara rek la neex def déedéet day dina yoo xam ne yàlla joxe na ca atte yaa ko xamul loola moom dee ko laaj loola tabiwu ci fala taf asoo an laaj waaye nga xam ne yàllaa ci joxewul benn atte ci alquran wala hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul ca nokk di gëstu di teengal ci kaf yàlla buggul yàlla malal la ba noppi ngay teengalal sa bopp te loolu daa yomb ci noonu lool yàlla buggul yombalal la mbir ba noppi nga ko nag jafeesal ko sa bopp wala mu yaatal la mbir nga ko nag xatalaat ca sa bopp jegee la la mbir nga fexe ba def ko mu sori nga sori la ko sa bopp ba daanaka fa mu nekk sa tànk jiite te fekk yëpp yaa ko yóbbee sa bopp yooyu yëpp yàlla bugg ko day liiba liibar rek def diine muy ju sempale te mooy lu yàlla wax alhamdulilah tabaraka loolu daal moom fas naa yéene moom waaye nag loo xam ne noppi na ci rek du ma ca daggal sama bopp sas woo xam ne xaw ma lii naa ko attan attanam nit mu daal di war a xabaan yetani tadox amma katabna alayhim illa ibtiqa ridwanallah ñooñu loolu la ñu doon faral ñoo sasoon seen bopp yoo xamante yàlla ne lii de faratuma lu ma farataluma ko ci ñoom bu nee dañ koy sàkkoo sama ngërëm ngërëm itam waaye nag fa maa dem nañ bi ca biir rek mënuñ lañ ca sas seen bopp mën mënatuñ koo supporté mu yóbbee leen problème nag loolu wax na kon falaata paw sax naa ci nekk mukk di ko loqat di ko loqatu mu nekk xadiisun euh, asan rawaahu daaraqi daaraqutni wa xayruhu wa an abdillahi ibni abi awfa radiallahu anhuma qaala wax na ne xataw naa xeex nan bis muy nekk ci jaar maa rasulillahi ànd ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam safa xasawaatin juróom-ñaari xeex yoo xam ne naa ko du noo nga daan lekk de aljaraade njéeréer yi raaw ci àll bi adi bi da ko jar rek ngir xam ne ne lekk yàpp njéeréer lu dagan la ndax boo fi nekk di riwaaya nekk da ci benn riwaaya sax dafa ne noo daan bokk di lekk njéeréer ya naa ko du dana daan lekk maa ak moom aljaraade njéeréer ya ah, war da caa xam ne ne jubloo koo tontoo xëy na ñenn ñi nga xam ne ñu ngay tukkandikoo ci addis yoo xam ne jubluwul loola ba defee ne yàpp njéeréer daa war a aram wari su ko lekk mu ne la déedéet ci yi dagal yi lekk la ni nga ko jànge ci téere fiq yi wa an abi hurayrata ba dee radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yuldaqul muminu déeful màtt ab ji latxu mooy màttub jaan wala settub jiit laa yuldaqul muminu déeful màtt ab julit min juxrin ci pax waahidin muy menn marrateeni ñaari yoon xam ne ne ab julit daa war a yewwu nag foog ba mennum pax daal dée su ca màtt sa loxo pax mi nga yor sa loxo dara ne ko debdet daal waru ko sax yoorab yoon yoonu ñaareel daf def dañ ko ca def dara loolu yeete bu rëy la ci ne ab julit lépp loo xamante ne bii waroon war war nañ ko ca benn yoon war naa jël ay matukaay ba beneen yoon diitu ko ca lépp loo xam ne def na ko benn yoon loru ca war naa jël ay matukaay jullit daal day doon ko yeewu ku foog waaye wóorul doon koo xam ne rek lu ko dal lu ne bu ëllëgee mën na koo dara bu ëllëgee mën ko dal loolu yëfi ko yeewu di ko dita jullit daa war a yeewu kon loo def lu ne gis ca lor te gisoo ca njëriñ fexeel ba bu ëllëgee loola moom duutu la dal fam la dalee woon itam duutu la fa mën a dalee mukk nag la la ko la ko yóbbee woon la ko mën a yóbbee loolu mooy laa yul doxal mu'min jullit boo xam ne lii maanaam mat na sëkk wala ak yewtee mat na sëkk doo fekk mukk julee sa ko màtt min jufitan ci menn sax waaye di mu di menn maratay ni ñaari yoon ba tey wa anhu jëlee nañ ci euh, abu hurayrata moom radiallahu anhu qaala moo xam ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne salaasatu ñett ngi ñoo xam ne laa yukallimuhumullahu yàlla du nangoog wax ak ñoom yowmal qiyaamata ndax jëppee gum leen jëpp wala iyaasu billah wala yan kuru du nangoo xool ilihim ci nee na yàlla du leen xool mukk sax du leen xool jëmee ci lu bëtub yërmande ne yàlla moom day gis lu def dara du ko wum waaye da xool bëtub yërmande wala bëtub nar leen a dimbali la ne du leen ko xool wala yusakkihim yàlla du leen tagg mukk wala mu di leen setal ci ay bàkkaar wala hum te def di da leen di ñeel asaabun alimun mbugal gu metti nag mel ne da ko ne ñett ñooñu mooy ñan mu ne rajulun waajoo xam ne ala fadli ma nekk na ci ndoxam mu des bil falaat ci ab àll yem na xoo mu tere ko min ibni sabirin ci ab doxandéem gu fa jaaroon ndax àll ndox dafay jafe te ndox yàlla bind ko pour ñëpp kon la la ci yàlla wërsëgale nag nga jëfandikoo ca ba des bu dee naan naan nga ba maa di desi waxale da nga koo xaretal ab doxandéem nag bu fa jaar nekk ci àll bi mar nar ko rey ci àll bi mu ñaan la ca te joxoo ko ko loola dégg bu réer ndax coxar bu rëy nag lay tegtali joxar ko li ndax ku ne ci àll moom mar ko caa a rey te ndox mi itam naan nga fa mandé kon da nga koy da ngaa moom nga jëkkee sowe sa bakkanu bopp bi waaye naan ba tal denc ko fa nag kon day mel ne daanaka xaw ngaa mën a am kàttanu xaw ngaa mën a am xolub yëkkati paaka reyoon koo ko sax mais yaa koy def loo xam ne rey ko say ko kooka yàlla jéppi na ko jéppi koo xam ne yow ma fi am du ko nangoo xool du ko nangoo def ci kenn ki des wa rajulun ak ab waay ci la atam ci ab marsalis baaxdal xasari gannaaw jullit dokku saan fa xalafa mu giñ bi léegi yàlla waatal ko ci yàlla ne marsalis wala jaay la axa mii mu ko jaay la axat xam moom ko jëndi woon bi kasaa ci nangam te fekk jënde woo ko ko woon loolu jaaykat dana ko faral def nga fay ko prix mu ne la man de li ma ko jëndi ëpp na loolu man de nangam laa ko jënde te fekk nag du loolu loolu daa garaaw kon man maa ngi ko jëndi na ko bi kasaa wa kasaa ci nangam fa saddaqo ko waaja gëm ko ne nag léegi loolu la ko jëndee kon nag fokk war naa ko fay lu ko ëpp boo war a fekk mbir ma àla xëy ka ma nga nekk ci loolee loolee mu ne moom la ko jënde jëndewu ko kooku it bokk na ci yàlla jéggi kon jaay doo ca sel da ngay wax rek sañ ngaa jaayee rek loolu la neex prix bu la neex waaye boo ca sel mukk nag dama laa wàññi te wëcc fekk wàññi ko nangam laa ko jëndee te ko ko nangam la ko ñëpp di jaayee te fekk ñëpp duñ ko jaaye yooya rawatina bu ca boole giñ ko boole ci nag ci yàlla ndax giñ ci yàlla it daa garaaw giñ seedeloo yàlla la kenn wër te ñemee giñ ci yàlla loo xam ne lii aw fen la moo tax ñu bokkale ko ci kabaa'iru sunuub yi nga xamante ne bii giñ yi nga xam ne jarul sax nga di ko jéem a kafaara ne genn kafaara mun tafar bàkkaaram ñuy wax mu dolli ca giñ ba mu def ko nag gannaaw tukkusaan ndax gannaaw tukkusaan day waxtu bi gën a màgg ci waxtu yi ndax muy waxtu yi nga xam ne ci la malaayika yi daje ci doomu aadama bi waxoon na ci benn addit ne malaayika yi awante yéen yi lay yendoo bu ñuy gont bi dem waxtu tukkusaan lay doon yi lay fanaanoo bu ñu ñëw war laata waxtu tukkusaan di ñëw dañ ciy fekkante kon waxtu tukkusaan ba ba jant bi sa diggante bu daa bokk ci waxtu yi gën a màgg te waxtu wu la gën a màgg nga xam ne jëf ju baax joo fa def gën a dañuy fil tiyaaba de naka noonu noonu lay mel ca bàkkaar bay def safaan boo fa def itam dañuy ful bàkkaar ba wala iyaasu billah euh, waaye ngiñ bi yëmul ci gannaaw tukkusaan moom dañu wax ne daal da cee ngir lim gën a màgg ci mboolem waxtu yi wane ne foofu la gën a garaawaate waaye wenn waxtu bu ñu ko defee itam du cee dugg ci benn waaye bi ci des mooy ci leen ñetteel mooy war a jun ak waa joo xam ne bàyyi xa dafa jaayante imaaman jiital diine laayu bàyyi dëggee dee sa war a jaayante moom ci di ko topp ndax mooy tax nag mu mën a réglé lislaam ci dëgg te fekk moom nag yu bàyyi axuko te dara taxul mu jaayante comme illa li dunya ngir adduna dong jaayantewul ak moom ngir yàlla jaayantewul ak moom ngir bëgg dimbali lislaam intérêt adduna dong la jubbi ci jaayante googee fa in aataahu bu ko joxee min ha ci adduna wafaa mu matale lam jaayante woo rek moom sëkk du xàcc mukk wa in lam yoxi bu ko joxul min ci moom lam jëfi du ko matale jaayante ga dafay daal di génn kooku it nee na yàlla jéppi na ko lool alxiyaatu billah mu nekk xadis muttafaqun alayhi wa anhu jëlee nañ ci nabi ani nabi wa anhu jëlee Euh, bayna ni nekk na diggante ña kii ah, de bay na rek la ko def euh, maa bayna ni la nekk diggante ak bayna ji ñoo ci am rek bayna nafqatayni diggante nekk na ñaari walya arbaona ñeent fukk maanaam foofu suñu borom tabaaraka di waxee wa nufiqa fi suur fa fayaqa man fi samawaati wa man fi l ardi illa man shaa allah su ma nufixa fii uxraa fa idaa hum qiyaamun yanzuruun du laa diggante dafa wax ne bu addunay tukki malaaka mi day jëkka wal burtu buftu bi bu ko defee mboolem ñi nekkoon ci asamaan yëpp yi dañuy daal di faat ba xattal malaaikatu jinne yeeg lépp la ba mu des nag ñee yàlla ñii ne mooy jibril mikaayil ak malakul mawti ak israfil te ñooñu itam nag gannaaw bu loola jàllee xëy na yooyu ay dañoo dese yu ñu war a rek waaye gannaaw bu loola jàllee itam danañ faatu ndax moom ku dul yàlla na nag bu ko defee nag bu woleefee woluk ñaareel ga rek bu bu yàlla bëggee ñëpp dekki da koy walaat woluk ñaareel rek ñëpp daal di dekkiwaat nag yow wu toog nag yow man xiyaam ja daal di taxaw liggéey ba daal di tàmbali diggante ñaari wol yooyu nag la Abu Hurayra ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante bari ñeent fukk moo fa dox ñeent fukk joojee rek da koo lëmb ko xaaloo ñu ne ko yaa abaa hurayra ndax arbaxoona ñeent arbaxoona yow ma ndax ñeenti ñeent fukki fan la wax xaala mu ne abaytu bañ naa te mooy a leeral ne man de ñeent fukki ñu wax ne ko arbaxoona sana ndax ñeent fukki at la wax xaala mu abaytu bañ naa loolu du maa ko ci leeral wóoruma xaala ñu ne ko arba ona sax mi xanaa kon ndax ñeent fukki weer la wa xaala mu ne abaytu bañ naa xal bu daal ñu waaye gannaaw bi gisaatam yéen teg ne ñeent fukki at yi moom la ñu ndax am na ko wala ne ñeent fukki at la bu ko defee nag ñëpp door a dekkiwaat wooy bu ko dee woyeb laa dana ràpp nag kullu sëy in lenn lu ne min li insaani ci doomu aadama ji yaram yëpp diiru lim tëdd ci bàmmeel bi lépp dana ràpp ba sey ba jeex ba mu def li ñuy wax illa aj ba zane bi ba mu def yax bu ñuy wax aj bu sana dañoo wax ni yax bu ndaw lay doon boo xam ne mu ngi ci euh, boori ndigg li ci doomu aadama boobu yax moom la yàlla dul nangu mu seey mukk su tuuti la nag ndax doomu aadama bu ne bu ñu koy dekkal ca yax boobee la ñuy tàmbaliwaat dekkal ka solaat ko mu tàmbali amaatu yàpp ci sekkiwaat ba tolaat na mu toloon moo tax mu ne fii ak bu sana boobu yu rakka bu leef bi monté waat ku bind gi ñuy bindaa doon aadama bu ko defee su ma yun si lu law bu ko defee yàlla day wàccee nag ñu ne samaay ci asamaan am ndox te mooy ab ab taw bu ko defee fa yëmbutu woon dañuy saxe ci bàmmeel yi génn dem kama yëmbutu comme ni muy saxe albaxlu ak gàncax ñëpp na wuti ak ko yómal xiyaam ba ba fajar dafa àtte yàlla na fa yàlla yërëm wa anhu jële nañ ci moom xaala moo wax ne bay dama nabi bi nga xam ne yonent bi fii fi aj li mi ngi ci ab jotaay yu xaddisul ma di addiisal nit jaa ak wata koo dikkal axaraatu yun benn kaw kaw fa xaala wax ne ko waaw kaw kaw bi ñu wax yun ko mata saatu kañ la yow ma xam di taxaw fa ma daa mu continuer rek Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu hadisu di hadisal nit ña wuyuwu ko gëstuwu ko continuer ca la doon wax fa xaala mu wax ndax baax du naa si lenn ca nit ña ne samiha dégg na maa la mu wax fa kariha mu sib maa xaala lii waa ji laaj de yonent bi dégg na ko waaye daa sib laajam boobu bëggul woon dafa bëggul maa ko moo tax wuyuwu ko waxaala ba abum am ñenn ci déedéet bal di ne déedéet daf ko lam yes ma daf koo déggul kay xatta ita xadaa ba nam jeexale xadiisoo ba xadiis ba mu doon defal nit ñi ba mu xàjjee xaala mu di wax ne ay na saa'ilu ana ki doon laaj ani saati ci yowmal am na mooy def loolu di wax ayna saailu ana aji laaji ani saaxati xaala mu ana man mii de yaa rasulallah xaala mu wax ne ko isa doy ati bi waxtu woo xam ne sànkeef na al amaanatu kóolu tege fantatir booye boo xaar as saatu yow mal xiyaam sànq kóolu teg mooy lenn lu moom la firi fii nag xaala mu wax ne ko kay fa ida axatuwaa nan lees koy sànke xaala mu wax ne isa wasila bis bu ñu wéeree al amra mbir ma ila xayri ahlihi jëm ci ñu dul ña ko yeyoon kilifteef ba buñ demee ba ña ko yeyoowul ñoo ngi doon kilifa ya léegi laaju masalay xam-xam ya buñ demee ba ñu ko yëyewul lañ koy laaj ñu amul xam-xam ndénkante yi buñ demee ba ñu wóoru ñooñu lañ koy dénk ne jare euh, njiit buñ demee ba gone ya lañ koy jox muy li xew ci lu bari di xew ci jamono gone yi jiitu mag ñi topp topp topp topp ca gannaaw bu ñuy laaj jeexit yàlla ñuy laaj ñooy wax waaye borom xam-xam yi ñu ngi doon loolu lépp tàbbi na ci isaa wusidal ahlu ila xayri ahli loola mooy tànk nañ ko wóolute ga nga xam ne moom la yàlla wóolu woon si ba tax mu tër programme lu ne la war a jiitu ak ka ca war a topp safaan nañ ko su boobaa nag booy boo fantasee saax da booy boo xaar xam ne yow ma fi amee ngi bëgg a ñëw waa muy jël ñu si mu am na rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaala wax na ne njiit yooyee nag muy wax ci njiit yoo xam ne dañ ñëw ci jamono te doon ñu manqué lool lana yusalluuna lakum danañu leen jiite ay mooy leen di jiite ay julli bu boobaa fa in asaaboo buñ jubalee julli ga fa yàlla nangul leen ñoo yéen ñii nangul leen ñoom ñooñee itam gannaaw jubal nañ julli ga xoj wa in axtawoo bu ñu juubee nag fa lakum yéen yàlla nangul leen ndax yéen topp ca rekk leen waat def leen ko waa alayhim bu ko defee rek mu si ba ma waat ci seen kaw mooy rawahul Buxaari wa annahu jëlee nañ ci moom ba mu wax ne kuntum nekk ngeen xayra ummatin bi ngeen jiw xeer uxrijat xam ne ma na koo génnee li naari ñeen nit ñi joojoo la ne xaara daf caa wax ne xayru naasi ki gën ci nit ñi li naasi ci nit ñi day yatuuna bihim dañ leen di indi fi salaasili ci ay ceen fi anaaqihim yu nekk ci seen loos ya xataa yadxuloo ba ñu dugg fil islaam ci lislaam ba yàlla tegee xeetu mooy dañu kuntum xayra ummatin uxrijat ta'muruna bil wa tanhawna 'anil munkar la lii ki gën ci nit ñi daa mel ñi te xeetu Muhammad ñoo mel noonu mooy ñi nga xam ne dañuy xeex ak ay yéefar ba nat leen jàpp leen i jaam ceene leen yeew leen andi leen yàlla dogal nag ñu far ñi dem ba mujj ñu tuub dugg ci lislaam ñooñee ñooy ñi gën ci nit ñi ndax mooy fekk post koo xam ne ca këru safaan ba na naroon dem nga fexe ba mu dem ca kër gu àjjana ga yaa gën ci moom ku dul moom wa anu jële nag ci mu annabi sallallahu alayhi wasallam wax na ne xaj ba rëbb ko yàlla sa boroom yéem na te mooy gërëm na rabbi dee nga Euh, subhanahu wa taala min xawmin ci aw nit ñoo xam ne yudxaluuna al jannata def leen di dugal àjjana fi salaatil ci ay ceen wane ne bu yàlla doon ko yéemu daal lii xora mën a xoramu ko wax ne dana yéem yàlla nit ñoo xam ne ay ceen leen di dugal àjjana ñoo xam ne yéefar yoo xam ne da ngay xeex ak ñoom ba gàjj leen jàpp leen i jaam ñu ñëw nekk ci biir jullit yi ba far ñu tuub dugg ci lislaam dooga ca dem àjjana fekk ceen yaa leen dugal àjjana loolu la de lu kiimtaane la moo tax mu ne maanaaw lii maanaam mooy yu sëruuna def leen di jàpp ay téléphone waxu yu xayyadoona ñu tënk leen su ma yuslimoon topp gannaaw bi ñuy tuub fa yadxulul janna te ñu dem dugg àjjana fa yadxulul janna te ñu dugg àjjana yàlla na yàlla may dégg ak topp yàlla na yàlla war a ñuy dugg